du ay kàddu sax ndax kàddu gi joxe nañ ko sànq waaye mbir su xewee dina baax ñu xamal lan moo tax mu xew Modou ku yàgg bëgg Pambal la moodu mën na ñëw sama kër Dakar ñu nekk ci oto bi di waxtaan une temps te du wax lenn lu dul njëriñ sànq daf ma woo mu ne ma maa ngi université di cinq heures la waroon ñëw parce que dafa buggoon ci xolam assister cérémonie officielle bi mais dafa amoon ay étudiants yu nekkoon université ñu invité woon ko fa benn euh, manifestation moo tax mu ñëw mu tardé waaye nag dafa mel ni tardé bi moo gën ndax na mu naroon ñëw cinq heures ñëw rek fekkee cérémonie bi ñibbi. ba mu tardé ñëw dafa ñëw ne ah Cheikh man de maa ngi pàmmaal ba heure boo leen bëggee ndax bëgg-bëgg ak cofeel dama leen di wax benn mbir chaque jour ngeen koy fàtte wala da ngeen koy sàggane yoonuk sëriñ Touba amul tànk ginnaaw cantuk pàmbaal gii amul tànku ginnaaw nee naa leen bés bu ne at bu ne danañ def lañ mësul lañ deful woon daaw nit dinañ koy dama bëgg ñu am gëm-gëm googu man duma ànd ak ku amul gëm-gëm yéen ñi fi toog ñëpp seede ngeen kii fa mu àgg fu ne gëm-gëm moo ko fa may. fii ngeen toog fii ngeen fal fi roi des arènes Bombardier fii la ñëw ngeen ñaanal ko mu nekk roi des arènes seen doom moo ñëw seen xarit moo ñëw seen mbokk moo ñëw ba tey ba pare mu ñëw ci bésub sëriñ Touba mu ñëw ci bésub yokkute cant gi man de heure bu ma fi jógee gis yokkute ci man fii heure bu ma fi ñëwee def fi dara. balaa at bee ñëw ma gis yokkute ci man kon su fi ñëwee ñëw na këram nu mu ko waxee te nag gëm naa ne dootu fi gëj kon mu ngi leen di sant bu baax maa ngi lay sant te bu muy ñëw àndul ak ay copain wam àndul ak ay xaritu kiiyam déedéet dafa jël baayam ki nga xam ne mooy biram ñi ngi fu mu taxaw ne kii mooy sama papa. muy ñëw Pambal nekk papa yow laay àndal Pambal loolu rëy la loolu rëy la kon Modou dañ lay tester ci Pambal ñëw nga fi ren ba balaa cant yi déwén maak yow fii àndaat incha allah ñëw ñu nataat yokkute rek nga fi jëlee ndax seddal nga xol waa dëkk te Pambal ku seddal seen xol ku ne gis ko déedéet du ja seen mbir du jaas. ku seddal seen xol ku ne ñu ñaanal la foo nekkul kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp da ngeen koy dangeen ñuy may nag sa jëwrin ndax ba mu ñëwee sànq ba tey dafa ñëwoon ñu nekk ci sëñ bi léegi ba tey nag xéewaloogul xaw ma bu dee waañ bi parce que moom moo ko man kese seet siwu man kese yéen ñëpp la seet bu dee mën nañ yónnee bool ci waañ bi